salaamaaleykum mbokk internet di vendredi 28 juin 2024 ñu ñëw ak yéen ci journal de l'euro bi comme ni ñu leen ko diggee woon xibaar yi nga xam ne coupe d'Europe bi la soxal ñu ngi jéggalu nag ci yéex door gi xataayu tabaski bi comme ni ma leen ko yàgg waxee moo ko sababoon waaye nag ñoo leen digoon ni ajjuma dinañu ko door door nañu ko nag ci kattanu yàlla lépp luy xabaar jëm ci euro boobee incha allahu rabbi fasuñu yéene dara ump leen ci kumpa jëm ci tàggat yaram bëgg-bëgg bi ñu am moo di mu wàññeeku ci askanu Sénégal ndax nit moom faw am lu koy umpo yàlla rek la dara umpul yàlla moo dañ kumpa waaye nag ñun sunu bëgg-bëgg moo di lépp lu jëm ci tàggat yaram bu ñu ci jotee saytu ko ba mu wér te wóor ñu indil ko sunuy abone laata ñuy ñëw ak yéen ci Yaatalug journal bi ñoo ngi ñaan kuy gan ci page bi te abonné gul mu abone te bés cloche de notification bi nga xam ne lépp lu ñu dugal rek dina ci ñu koy njëkk a jot yow mii di ma topp ci tiktok bi tamit su fekkee abonné goo li ma lay ñaan moo di nga abonné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 Pologne bu ñoom Robert Lewandowski moom Antoine Griezmann départul woon titulaire ca match boobee naam laata match bi di jeex ki leen di tàggat tudd Didier Deschamps woo na ko mu dugg football ay minutes yu ndaw waaye mën naa am altine incha allah bu France di jàkkaarloo ak Belgique mu départ titulaire ca match boobee muy Antoine Griezmann nekk joueur Atlético de Madrid waaye jamono jii ma nga ca Europe ak réewam di France xibaar boobu l'équipe moo ko xam xamle ñu jugee ci Antoine Griezmann dem ca équipe nationale bu Allemagne bi dalo euro bi ñoom nag seen defenseur bi tudd Antonio Rudiger keroog bi ñu jàkkaarloo ak Suisse dafa amoon blessure bu ndaw ca match boobee loolee tax na nag fan yële weesu entraîné wul ak équipe nationale bu Allemagne waaye jamono jii nag wér na te bokk na tey jii ca entrainement ba ba mu jeex kon nag suba incha allah bu Allemagne di jàkkaarloo ak Danemark mën naa bokk ca match boobee doxal muy Antonio Rudiger nekk défense ci Real de Madrid waaye jamono jii mi ngi doxal ak équipe nationale bu Allemagne. ñu jugee ci Antonio Rudiger ak xabaaram bu neex waaye équipe nationale bu Allemagne duñ leen bàyyee gum ñoom suba bu 19h jotee Danemark la ñuy jàkkaarlool. ki leen di tàggat tudd Julian Nagelsmann mën naa am mu amal ay coppite ak ci taxawaayam tamit mën na caa amal ay coppite ndax jamono jii lim bëgg moom Julian Nagelsmann moo di gone gi nekk ci Borussia Dortmund tudd Füllkrug mu départ la ko titulaire boole ko ak Kai ñu taxaw ca kaw di doxal waaye kat su loolee amee gone gi nekk ca Bayer Leverkusen tudd Florian Virtus mën naa am mu doore match bi ci banc bi moom Julian Nagelsmann bëgg-bëgg bi mu am moo di Füllkrug départ titulaire mu boole ko ak Kai ñu taxaw ca kaw di doxal waaye su loolu amee moom Florian Wirtz mën naa am ci banc bi lay dooree match boobee subala nag incha allah. ñu jugee ci équipe nationale bu Allemagne ak bëgg-bëgg boobee ki leen di tàggat tudd Julian Nagelsmann am dem ca équipe nationale bu Géorgie ñoom nag Espagne la ñu war a jàkkaar lool ci huitième de finale yi. match boobee sax tax na kii leen di góolul tudd Mamardashvili wax na nee na équipe nationale bu Espagne bu ñu boolee joueurs yi fay football yépp Kvaratskhelia moo leen man gone gi nag doomu Géorgie la ma ngay football ca Napoli waaye jamono ji mi ngi doxal ci euro bi loolee sax mamadar Chevili da koo dëggal nee na moom gone gi képp équipe nationale bu Espagne yépp bu ñu leen boolee moo leen mën dinañu jàkkaarloo nag ginnaaw suba ci dimanche ju incha allah nara nekk match bu neex Mamadou Chevili nag min na lool Espagne ndax ca Valence lay góolu ñu jugee ci Mamadou Chevili ak i kàddoom jox leen programme mu euro bi suba suba nag ñaari match la ñuy xaar tey ji match amul waaye suba la ñuy door huitième de finale yi match bi ñuy njëkk amal ci bëccëgu suba suba bi mi ngi war a dox ci diggante Suisse ak itali kon itali ànd ak Federico Chiesa ñooy jàkkaarloo ak Suisse ànd ak dandooy match boobee bu jeexee ba ñu yegg ci dix-neuf heures Allemagne mi daloo euro bi mooy jàkkaarloo ak Danemark Danemark ànd ak Christian Eriksen ñooy jàkkaarloo ak almaañ ànd ak Toni Kroos kon ñaari match yooyee ñoo am suba tey ji moom match amul suba lañuy ñuy door huitième de finale yi gaa ñi journal bi foofu la buuree